Muhammad ne naa la yaa ñu sagal RDV xam sa def sa wane sa mbër yaay booy siiwal sa mbër te kii la ñuy kon boo defee lii daldi ñëw xol day daal sedd RDV sunu télé RDV. allo mbër. yaa ngi yaa waaw kon ñoom maa ngi ñëw dégg nga man ak gars yi nekk waaw man a Matar Gueye dëkk Thiès juddoo Thiès yoroo Thiès yor tur bu bees ñu koy wax changement léegi changement laa tur nekk Ikir Lamsar ñu changé ma léegi nag maa ngi def émission xam sa mbër bu RTV Mohamed di ko réaliser mu nekk waa joo xam ne ku extra la maa ngi lay jox rendez-vous jeudi yeneen i feem wala boog changement is back is back changement is back changement